bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah walsalaatu walsalaamu ala rasulillah muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa baad mbokk yi ñu ngi am mbégte di dellu siwaat ci suñu waxtaan fii rihaabi adami suratin fi l quran ñu nekk di ànd ak saar bi nga xam ne moo gën a màgg ci alquran di taataan ci ay ngëneelam ak ay njariñam di jiima jàngat tamit loo xam ne mën nañ ko ci jariñoo ñu ngi wanak ak yéen ba tey ci aaya bu màgg boobu di ihdina siraatal mustaqim nga xam ne kuy jàng faatix boo fa tolloo dangay ñaan yàlla ñu ngi lay ñaan nga teg ñu ci yoon wi yoon wu jub wi fàttali bi weesu woon dañ doon wax ne yow mi ñaan ak njub war ngaa xam sabab yi nga xam ne soo ko defee am ak njub daf lay yomb ci lañ nekkoon waaye gis nañ tamit ne war nañ waxtaan yi nga xam ne day xañe ak njub dafa am ay mbir yoo xam nit ki su ko defee donte mi ngi ñaan ak njub su defee yooyu yooyu da koy xañ ak njub te defe naa lu toll ni al hidaaya nga am ak njub tegu si siraatal mustaqim yow mi koy ñaan guddeeg bëccëg saa boo jullee nga ñaan ko si ràkka bu nekk kon itteel na la fullaal na la war na laa ñor kon lépp lu koy xañee war nga koo xam ndax nga mën koo moytandiku ndax xam lu bon lu baax la yoon wu bon soo ko xamee dafay tax nga mën koo moytandiku nga nga ràññatle ko soo ko xamul noo koy moytoo xudayfa ibnul yaman radiallahu anhu daf daan wax naan nit ñi suñ masaan ñëw ci yonente yàlla sallallahu alayhi dañ koy laaj lu baax ak yoonu lu baax ak tax nga am lu baax man su ma ko daan laaj dama koy laaj lu bon naka la nit kii di def ba am lu bon su ma ko xamee dama koy moytandiku ndax damay laaj pour xam safaanu lu baax pour su ma xamee safaanu lu baax ma man koo moytandiku ndax soo ko xamul mën nga see tàbbiti doo ko yëg kon yi nga xam ne soo ko defee daf lay xañ ak njub yooyu dafay baax ñu xam ko yow sama mbokkum julli nga xam ne am ak njub itteel na la xamal ne pour nga am ak njub comme ni mu amee ay jumtukaay yu koy maye ak ay sabab noonu la amee yu ko mën a xañe ak yoo xam ne mën na laa fab bi ba soril la ak njub ba soril la nga am lu baax te soo soree ak njub sori lu baax da ngay sori texe texe àdduna ak àllaaxira duñ la mën a limal yooyu nga xam day xañek njub yëpp waaye mën nañ laa wax rek yenn yi nga xam ne ñoo ci ëpp solo bi ci jiitu yiy xañe ak njub mooy topp bànneex nit nga xam ne bànneexu bakkanam kese lay topp loolu daf ko yiir baru tegu ci yoon wi njub dana ko waññi ci yoon wi suñ boroom mi ngi wax ci alquran afara'ayta man ittaxada ilahahu hawaa wa adallahu llahu ala ilm wa xatama ala samcihi wa qalbih wa jacala ala basarihi gishawa fa man yahdihi min baadillah afala tadakkaruun mu ne ndax gis nga ki nga xam ne bànnee xam mooy yàllaam bànnee xam lay topp fu ko bànnee xam jëme rek mu dem fa bakkanam lay topp daal li neex bakkanam rek lay def kooku de yàlla sànq na ko dond ko sax am na xam-xam gis nga nit ki am xam-xam bu yarul bakkanam du mën a topp xam-xam bi soo xamee dëgg te yaroo sa bakkan si topp dëgg doo mën a topp dëgg nit ki topp bànneexam yàlla daf koy sànq te ni koy sànke mooy dafay mujj kaste ab déggam du nangoo dégg dëgg yàlla dafay tëj ab xolam du nangoo nangu dëgg yàlla dafay def ci gisam ak muuraay lu ko muur ba du nangoo gis dëgg yàlla mu ne waaw ku mel nii koo xam ne du dégg dëgg du nangu dëgg du topp dëgg nanguwul gis dëgg kooku fa may yahdihi min baadillah kan moo ko mën a jubal gannaaw ba ko yàlla sànke afala tadakkarun xanaa du ngeen waaru kon yow mi ñaan ak njub moytul topp sa bànneexu bakkan bokk ne si liy xañe ak njub tamit rëy ak yéemu sa bopp ndaxte loolu dafay gumbaal nit ki ba du gis ay defoom nit ki rey du gis ay defoom nit ki nga xam ne dafa yéemu ci boppam naw boppam lool kooku du gis ay ñaaw-ñaawam ak ay defoom te loolu dafay xañe am tawfiqul hidaaya dafay xañe njubug yàlla suñ borom mi ngi wax ci sootul araaf sa asrifu an ayaatiya alladina yatakabbaruuna fi l ardi bi gayri lxaq wa in yaraw kulla aayatin laa yuminuu biha wa in yaraw sabila rushdi laa yattaxiduuhu sabila wa in yaraw sabila alxayyi yattaxiduuhu sabila yàlla mu ne samay laaya danaa wëlbati samay laaya si koo xam ne dafay rëy rëylu ba du si mën a jariñ ki nga xam dafay rëy rëylu te koo gis muy rëy rëylu rëy rëylu googu muy rëy rëylu ko ci dëgg yatakabbaruna fil ardi bi ghayril xaq képp koy rëy rëylu rek tegoo ko ci dëgg ñooñu nga xam ne dañoo rëy duñu nangu li yàlla di jàngale ci alquran bu leen dëgg dikkalee tamit duñ ko nangu wa in yaraw kulla ayatin laa yuminu biha soo leen andiwaloon aaya bi gën a leer duñ ko nangu duñ ko gëm wa in yaraw sabila rushdi laa yattaxiduhu sabila suñu gisee yoonu njub duñ ko jël waaye nag wa in yaraw sabila al xayyi yattaxiduhu sabila suñu gisee yoonu cànkute ak yoonu mbeewte moom lañuy topp ndax dañoo beew ki rëy beew ndax alalam wala ab juddoom du nangu dëgg doon tëkk ki ko andil dëgg sax lu leer lay wax waaye da koo xeeb ndax rëy mooy nga xeeb nit ki ba tax nga bañ dëgg yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na al kibru batarul xaq wa xamtul xalq dëgg mooy nga maanaam rëy rëy mooy nga bañ dëgg di xeeb nit ñi nit ki wax la dëgg gu leer mu wóor la dëgg la te dëgg gi dëggug yàlla la wa qulil xaqu min rabbikum neel dëgg moom si yàlla la jóge ki la koy wax nag nga nga xeeb ko ba tax nanguwoo dëggug yàlla gi iblis la tax mu rëbbu la tax yàlla dax ko si yërmandeem mooy yàlla moo ko sant ne ko sujootalal aadam iblis xeeb aadama li ko yàlla sant mooy dëgg waaye du ko nangoo def parce que dafa xeeb aadam xalaqtahu min turab wa xalaqtani min naar kii nga xam ne yaa ngi ko binde si ban te man yàlla yow yaa ngi ma binde si sawara lu tax ma koy sujootal yàlla mu ne illa iblisa aba wastakbara wa kaana min al aalim iblis dafa wa kaana min al dafa rëy daal di bañ li ko yàlla sant ndaxte dafa yëkkatiku dafa weddi xéewali yàlla kon rëy dana tax banit ki du am ak njub njubug yàlla yow sa mbokkum jullit rëy lu bon la yaanu si yàlla musal moo tax yonte yàlla sallallahu alayhi mu ne képp koo xam ne am nga ak rëy lu toll ni li gën a tuuti muy dara doo dem aljana laa yadxulu aljannata man kaana fi qalbihi mithqaalu darratin min kibr yonent yàlla alayhi salaatu salaam nee na képp koo xam ne sa xool bi lu toll ni lu gën a tuuti pepp suuf nekk na si si rëy doo dem aljana ndax doo topp yoonu aljana rëy nga loolay alak rek ngay def yàlla nu si yàlla musal moo tax dina baax nit ki di wax allahumma inni audu bika min al kibr yàlla na ma yàlla musal si rëy ak al guruur nga waru yëg sa bopp léeg-léeg sax nit ki si yoon yoonuk mbaax si la yëge boppam masalan nekk nga ab jànkatu alxuraan nga yëg sa bopp nga jàpp ne daal soo ñëwee sa si say moroom ñu taxaw yow rek yaa war a nekk imaam ndax da ngaa yëg sa bopp su ñuy wax ak mbaax si yow la yow yow lañ war a joxoñ ndax yëg nga sa bopp donte ka da ngay yàlla daf la wërsëgal alal ju bari ngay dépenser nga yëg si sa bopp loolu dafa lay yàqal kon rëy ak yëg sa bopp lu mu da dana yàqal jàmbi lu bare bari bokkoon na si lim koy yàqal mooy du am ak njub du mën a tegu ci yoonu siraatal mustaqim bokk na li taxa ñàkk ak njub tamit nit ki bañ a mel lu tax mu mérité ak njub ndax koo xam ne daanaka lu baax daanaka xemme mu ci dara lépp lu ñuy wax ak mbaax sawaru ci kooku kay teguwul ci yoonu am ak njub koo xam ne moom daanaka daal xemmemul tuyaaba yàlla ah yàlla nag tuyaabam yi moom lay terale ay jaamam yi góorgóorlu ci yoon wi gis nga njub gannaaw danga koy ñaan dafa soxla nag yow nga ubbeeku ngir nga am ko waaye koo xam ne sawarul dara ci lu baax du góor góorlu dara ci lu baax moom daal dafa tàyyel lool même si farata yi da see tàyyel nit ki tàyyel ay farata kook du naafila koo xam ne bu julli jotee balaa muy julli balaa muy jóg dana def lu ne moo xam julli fajar la ay nelaw moo ko gënal jóg julli fajar nga xam ne balaa muy julli rek dafay nelaw ba doyal kooku est bëgg na lu baax koo xam ne moom du xëy mukk li ko yàlla wërsëgal si alal mu fas yéene dimbali si ñi mu tane boppam rek kooku est-ce que ubbeeku na pour am lu baax koo xam ne ittewowul jàng diineem yokk xam-xamu diineem bu dee am na si dara yoonam jiimul rafetal sax njàngum faati faatixaam jiimul ittewoo sax julleem gi muy julli lan moo ci ay farata ak la moo ci ay sunan koor gii muy woor jiimul lijjanti sax lan moo koy yàq ak lan mooy ngëneel yi si nekk yoonam si julli naafila kooku ubbeekuwul pour am lu baax kooku naka lay amee ak njub kooku tegul si yoon wu njub kooku yàlla xam na ne xolam bi yiw nekku ci moo tax yàlla wax ne walaw alima allahu fihim xayran la asmaahum walaw asmaahum la tawallaw wa hum muridun mu ne ñi gën a yées si nit ñi inna charat dawabi inda allah assummul bukmu alladina la yaqilun ñi yées ci li yàlla sàkk mooy ñi nga xam ne nanguwuñu dégg dëgg nanguwuñu wax sax lu lu baax te amuñu xel yàlla mu ne su xamoon ci ñoom aw yiiw dana leen déggloo dëgg te ñooñu sax buñ leen déggloo dëgg tam dañuy joxe gannaaw duñ ko nangoo topp kon nit ki mu ñàkk préparer boppam pour am ak yiw ko loolu dana ko xañ ak ñub bokk na si liy xañe ak ñub nga bañ a toroxlu bañ a wuyu wooteb yàlla nga bañ a wommatu nga bañ a tënku ci ndigali yàlla yi suñ boroom nee na walaw annahum faalu ma yuaduuna bihi la kaana xayran lahum wa ashadda tathbita wa idan la aataynaahum min ladunna ajran aziman wa la hadaynaahum siratan mustaqima te boobu mi ngi wax ci naafiq yi yi nga xam ne suñ leen di woo ñoom ño déclaré ngam te suñ leen woowee ne leen kaay leen atte woo ci li yàlla wax ak li atte ñu bañ yàlla mu ne ñoom day lan leen di woo suñ ko nangu def loolu moo gën si ñoom kon ñàkka nangoo topp yàlla dafay xañ ak ñub yàlla mu ne suñ nangu woon waaru sa leen leen di woo looloo gën si moom te dana tax ñu saxal leen ci yoonuk njub te kon dana tax yàlla defal leen pay gu rëy te dana leen gindi yoon wu yoon wu jub muy siraatul mustaqim bokk na si liy xañ ak ñub itam nga am ay àndandoo yu bon ba jeexitalu ci ñoom ba mujj bon ni ñoom ndax sab àndandoo moom boo yàggee ànd ak moom dafa lay wàll jikkoom kon góorgóorlul di xool ñi ngay àndal ak ñi ngay xaritool nañu nekk ñu baax ñu tegu ci yoonu mbaax waaye soo àndeek ñoo xamante ni baaxuñu di toog ay jataay yoo xam ne ay waxi caaxaane ak waxi mboosóor aki nekk ci lu seen yoon nekkul ak i jëwëg ay faits divers ak caaxaan yooyu rek lañuy def nga toog ak ñoom loolu daf lay xañ ak njub ndax ñi nga toogal di ànd ak ñoom jubuñu soo àndeek ñu jubul dangay ngay da ngay ñàkk jub xoolal Abu Talib bi nga xamante ni yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam ñëw na fekk ko muy waaj a faatu Abu Talib bàyyi la ci yonent yàlla sallallahu alayhi defal ko lu baax lu ne aar ko yiir ko ba yonent bi bëgg mu mu tuub dugg ci lislaam abu taalib tëdd nekk ci ay waxtoom yu mujj ci dundam yonent bi nag dem ne ko waxal laa ilaha illallah soo ko waxee ma mën a sukkandiku ci wax boobu nga wax pour la yàlla si sama kanamu borom pour rammu la nga dem aljana mais nag am na ay àndandoo yu bon yu nekkoon foofu lu mel ni abu jahlin ibnu hisham ak abdullah ibnu abi umayya ibnu mughira ñu naan koon atargabu an millati abdul muttalib atarghabu an millati abdul muttalib ñu naan kon waaw da ngaa nar a bàyyi yoonu abdul muttalib est ce que da ngaa nar a bàyyi yoonu abdul muttalib di ko wax di ko wax rek ba abu taalib mujj ne ala millati abdul muttalib loolu la mujj a wax waxul laa ilaha illallah bi ko yonent yàlla sallallahu wa sallam wax wax ko yonent bi mi ci wetam naan kon waxal laa ilaha illallah bon yii naan kon est ce que da ngaa nar a bàyyi sa diine est-ce que da ngaa a bàyyi sa diine bàyyi di ko wax loolu rek ba mu ne maa ngi sama diiney bàyyi mu mujj faatu ci loolu loolu metti woon na yonent yàlla sallallahu alayhi lool kon ki nga xam ne ci loxoom la ak njub nekk muy yàlla kooku dey moom lañ war a sàkku ak njub ci moom ci topp ndigalam waaye bàyyi la muy tere wante koo xamante nii nag mi ngi yaakaar ak ñub feneen fu yàlla na ne du ko am du ko mas a am foofu yàlla mi ngi naan qul hal min shurakaikum man yahdi ila al xaq qul illahu yahdi lil xaq afaman yahdi ila al xaqi axaqu an yuttabaa amman laa yahdi illa an yuhda fama lakum kayfa taxkumun yàlla mu ne laaj leen est-ce que ñii ngeen di yaakaar bàyyi yàlla ñoom ñooy jubal ci dëgg wala yàlla mooy jubale jubale si dëgg tontu leen ne leen yàlla rekk mooy jubale si dëgg est-ce que koo xam ne mënul gindi boppam lu dul yàllaa ko gindi est-ce mën naa gindi keneen koo xam ne dangaa soxla njub yàlla kooku bu ko yàlla jubalul du mën a jub de kooku nag nga ñëw ne dangay ngay sàkk ci moom ak njub yàlla rek moo mën a jubal kon nañu weeru si yàlla subhanahu wa taala ñu jaamu ko ci jaamu gu sax ñu taqoo di tudd yàlla subhanahu wa taala guddeeg bëccëg kon de ñu xemmem aw yiiwam moom yàlla ñu ragal lool mbugalam mi nga xam ne daf koo tëkkoo lépp loo xam ne dikkal nañu si lu baax ñu sante ko yàlla subhaanahu wa taala yàlla nag dafa bëgg nit ki di wéeru si moom di wéer ay mbiram si moom di xeme lu nekk si moom foo njortoo yàlla rek foofu ngay fekk yàlla kon na njortu si yàlla lu baax di njortu si moom di yaakaar si moom mu daal ñuy gindi teg ñu siraatal mustaqim gannaaw bañ ko ñaanee suñ boroom mi ngi wax ci xadis si mu ne ana inda zanni abdi bi fal yazunna bi ma sha mu ne man daal maa ngi fu ma samab jaam njortoo samab jaam na njorto si moom lu ko neex lum mu njorto si man rek loolu lay gis si man moo tax yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam kaana yuhibbul fa'lal hasan yonent bi dafa bëggoon gaf bu rafet yonent bi sallallahu alayhi lu ñëw rek da si optimiste daf koy xool xooli baay bu rafet parce que dafa rafetal njort si yàlla nit ki nga xam dafa pessimiste lu ñëw rek mu ñaaw njort si loolu li tax mu man koo def mooy dafa ñaaw njort si yàlla kon sa mbokkum jurit lii lenn la ci loo xam day xaña ak njub yàlla nu si yàlla musal te teg ñu si yoonu njub ñu ngi joxe dig ba bu ñu dellu see ji ma continué waat ci saar bu màgg bi nga xam ne mooy sotul fatiha xëy na nag bu ñëwaatee danañ tàbbal suñu waxtaan dëg dëgmal ko ci aaya bi si topp muy siratal ladina an'amta alayhim yàlla na nu si yàlla defal tawfiq subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk